Laurent ngi noonu Laurent ngi noonu def ay gauche ay déplacement barke Rasulaay ngeen am ko en direct eh, na weex ah, ah? ah ngi noonu ah Laurent ngi noonu barke Rasulaay Laurent noonu c'est barke gis nga gis nga gis nga oh Laurent ngi noonu ah Laurent nee na saa yi tey bëgg a jàpp dina ko dóor ba mu bëgg a dee. Laurent ngi noonu de noonu dafa liggéey liggéey na. am niveau yi Bou Siteu ngi noonu ci côté bi Bou Siteu ngi noonu ci côté bi di joxe ay gauche droite am Bou Siteu ngi noonu Bou Siteu ngi noonu di joxe ay gauche droite am ay gauche droite la lay kanam soo paree soo paree soo paree jëlal sa waay saa sama yaram tàng na. non gis naa loolu. liggéey na saa mi ngi si forme. saa mi ngi dafa liggéey xool ko. mi ngi étiré wu noonu mi ngi noonu mi ngi noonu. moo war a daje ki nga xamante ne moo di Laurent Ndiago acca gis ngeen échauffement yi étirement du moins nee na na nga xool bi nee tax mënul dégg kenn barke Rasulullah niveau bi la niveau bi moo yéeg moo tax instant mënul dégg kenn instant bi acca Bou Siteu noonu di def ay étirement moo war a daje ki nga xam ne moo di Laurent Ndiago bu bu yaram bi dafa tàng. wóorul noonu. ka jël ma fii ko foofu. wóorul coach bi coach bi nee na egg ko foofu. voilà. wóorul noonu. yaa ngi ñax wala ngi lële. wala ngi lële moom tamit si defam loxo yi. bu ak Laurent am ko en direct sur Wassare Lamb barki Rasulullah ay étirement la bu bu dafa liggéey wala étirement yi mais dafa mel ni buu moo gën a ñàkk Laurent buu yaa gën a ñàkk Laurent looy wax si loolu ah buu li ma teg liggéeyu la yaa gën a ñàkk ñu ngi noonu noonu boo ngi noonu buu si taa ngi noonu ngeen am def ay étirement Laurent ngi nee tamit Laurent mi ngi Laurent mi ngi noonu moom tamit waaw Laurent mi ngi noonu ñëw na Laurent ak Bou Siteu Laurent ngi noonu di def ay étirement moom tamit gis ngeen ko Bou Siteu ay ñu ngi noonu di def étirement yi gis ngeen ko voilà gis nga mi ngi noonu baax ñu wàcc ñu wàcc bu booyoo ngi noonu ak coach bi booyoo ngi noonu waaw ah, waaw. ñu dem dellu si. jël yaram bi nga téye yaram bi. coach bi nee na nga téye yaram bi. coach bi nee na nga téye yaram bi. xool eh, xool ma yooyu jax tax voilà. jëlama buu jëlama buu si te. baax na baax na Aziz Dabou gis nga mi ngi noonu. di doxal léegi damay waaxu rek waaxu rek affaire bi ñëw. da ngay délassé wu loolu la ñu wax délassement. Ah, dafa liggéey. barke mais bu mais bu dafa yokk ci diggante man loolu ma ñaaxal. mais bu dafa liggéey. non dafa yokk ci diggante bi. gis nga buunu muy ñàkkee. non dafa yokk ci diggante bi. gis nga buunu muy ñàkkee. bu dafa yokk. ana ngay la ngay wax loolu guy gis nga buunu muy ñàkkee. bu dafa yokk. barki rasulaay ma ne sànq xaw na maa wex xaw na maa rey sànq rek su ñu weex boo ànd ko da ngay dugg rek. la mission d'aujourd'hui mooy le gagnant. Moussa Diagne noonu moo war a dajale ki nga xam ne moo di Laurent Ndiago. bu bu. ana tey ndax nga préparé li nga xam ne moo di combat bi. waaw noo ko préparé rek muy waaj ko samay mbokk waaj ko waaj boo xam te nii cardio bi laa doon liggéey maanaam man combat bi entraîné ma ko noonu dama doon liggéey cardio rek maanaam koofur. koofur may may koofur. du ah. may may koofur rek laa doon liggéey si combat bi te xam naa ne buñ duggee si biir yàlla baax ak échauffement yi yow dèjà ñàkk na te sa adversaire ñàkku lan ngay wax si loolu mais mooy liggéey rek muy buñ duggee si géew gi koo furle maanaam moom poids mu yor nii sax dafa ma neex. waaw man dama mais mais bu fee si biir mel na ni mbàccum gerte de fee na sàpp de. saf la def lu saf laay wër. barke Serigne Touba man man damaa ana tey lan ngay wax li nga xamante ne mooy supporter ne nga war leen fekk biir. waaw supporter lu ma leen wax rek muy ñëpp a ngi si ñëpp a ngi di wàcc xam nañ Bou Siteu bi dugg si si si enceinte xam nañ ni Bou Siteu jàmbaar laa. man ay dama am fit du ma du ma ko du ma li ma koy wax sax bëriw ay am fit. baal loxo mais sénégalais xam nañ. lii da ngay bàyyi sa yaram doo concentré waaw. xam nañ bu baax. tournel gannaaw